d'académie bu Pikine Guédiawaye ak Kër Massar am na satisfaction ndaxte concept ubbi tey jàng tey daanak respecté nañ ko ci lekkool yu bari alors lim bi nii la tëdde juróom ñaar téeméer ak juróom fukki école ay collège ak ay préscolaire ak fukki lycée ak ñeent muy ñett ñaar téeméer ak juróom benn fukk ñeent ci ay lekkool bi ñu ci demee seetlu nañ ne téeméer boo ci jël cours yi door nañ euh, téeméeri école yooyu yëpp boo téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ak ñaar yi démarré nañ ci suba boo jëlee école élémentaire sax téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett yi démarré nañ seeni cours école publique soo jëlee collège téeméer yoo jël juróom fukk juróom benn fukk ak juróom yi démarré nañ loolu tamit euh, euh, fi nga xam ne am nañ fi tuuti jafe-jafe rek mooy lycée yi ndax fukki lycée ñeent lañu am mais ci fukki lycée ak ñeent yi daanaka boo leen jëlee fukk ak benn bi fukk ak ñaar yi cours yi démarré nañu ak yenn li ci ëpp ay classe terminale waaye am na lekkool yu bari yu nekk ci jafe-jafe. quelques écoles ñeent ba juróom yoo xamante ni euh, am na tuuti jafe-jafe euh, bi ci jiitu mooy am na école Elimane Ndiaye Pikine école. Euh, PAI 5 Parcelles Assainies 5 bu Kër Massar euh, CM Thiaroye Azur plan Jaxaay parce que ci école yi ma lim ni dafa am école yoo xamante ni maanaam fi ñu leen tabax yoonu ndox la. l'inspecteur d'académie bu Pikine Guédiawaye ak Kër Massar daal na souligner itamit ñàkkum toilette ñàkkum ndox ci établissement yu bari yi nekk fii ci banlieue.